oto ñoo bokk yoon moo waral yenn saay warul am nag parce que technologie toll na foo xam ne loolu warul am parce que bateau bu dee beneen bateau la buy balaa mu yegsi am na lu koy indique malheureusement gaal yi souvent loolu amul lu dëgg euh, mais jàppaleen ni daal état bi mu ngi def kenn lay kàttanam ci wàllu woowu ci wàllu moyen ñu ngi investir loo xam ne jàpp nañu Sénégal ma su ko def ci surveillance d'abord suñu zone maritime jàpp leen zone maritime moo ëpp est-ce xam ngeen ni moo ëpp réew mi ci wàllu dayu lu tuuti Euh, moo le président ñun force euh, armée française moo ñu ci président avion bu tax toutes les euh, toutes les technologies pour justement participation boobu fi signé marché milliards pour réhabiliter six navettes navettes même armée yoo xam encore ci surveillance